إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله يكبح لا لا لا برمبخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله la, إله أكبر Đã với mầm sinh dài lại Buồn bạc mây Bà phản xuân lệ Ngày nhu lo đô Từng nắng ngồi la. lạc njaay laay dabay maam say njaay laay burum baax may sa biige umma faal dabay maam say na bu njaay laay suru maam say njaay laay laay sabige kumba fa sey na bu njaay santati Cheikh Bamba tey ngir moo taxaw julli woon fa Ndar ba sañ ko tey alxamdulii ñuy santati Cheikh Bamba ngir moo taxaw julli woon fa Ndar ba nu sañ ko tey alxamdulii ñuy santati Cheikh Bamba tey ngir moo taxaw julli woon fa Ndar ba nu sañ ko tey tey ngir moo taxaw julli woon fa Ndar ba nu sañ ko tey rakkam ya mooy sofeta si ñun te mooy dox ba tey màggal ko moo di war ci ñun ñu di ko sant tey biro bee fa ndar moo atte mbër ya fa jaar ba wey ku fi dul sëriñ Tuuba keroog si ñëwoon nga wéy soldaar sa ak waa tribunal keroog ñëpp xëy kañu naan borom ndar ñëw taxaw di yàlla jay ma nga merte nan leen merde may seen yàlla tey ku mu woo keroog présent nga wax mbaa nee nga wéy mu ni leen bàyyi leen islaam mu fay bu mu weesu tey tas jàkk yeeg seen daara yi bu ma kenn lay ku ne noo ma ku ne wii ma fay mu daldi xëy islaam di jëy ba xëy foofe doon waaja wéy Cheikh Bamba moo gàntal keroog yenu yen ba way Sëñ Tuubaa raw ku ko bañ deewal bi mu dellu ne jàmm xew ci sa diine tey ña ko réere woon di ko méngaleeg ulamaa ya way ba ñu leen jëlee tey leen fandar moom rekk way diirub atam ya mu def la laxasaayu tay nasaran si bañ mbolo taxaw waxuma di wey bi mu dellu see fu ne jàkk yaa nga fa sampa tay ak daare ku ne jam xew ci sa diine tay l'islam ngi Cheikh Bamba moy ki ko donnu ngir moy ki ko teylu ba ku ne jot ci tay bu pertement amoon mooy fay ma ne bu pertement amoon sëñ Tuubaa mooy fay ngir moo taylu woon lislaam a ngi Cheikh Bamba mooy ki ko doonu tey ngir mooy ki ko taylu ba ku ne jot ci tey riddal ilaahi alal xaadim di ki yàlla may wax leen jërëjëf Serigne Touba sa jëf na ko yàlla fay riddal ilaahi alal xaadim yàlla may wax leen jërëjëf Serigne jëf na ko yàlla fay wax leen jërëjëf Serigne sa jëf na ko yàlla fay wax leen jëf sëriñ Touba sa jëf na ko yàlla fay jërëjëfe sëriñ Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Moussa mii nag maa ko wax dama ko bëgg te dëgg la dama ko bëgg lool te dëgg la